السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائرة مخدمة الخدمة بسيط جمعي توبا موي نوي مبوك جلد يب اك مبوك تالي جوتلي اك ليرا نغلول سرين بي تلي اجو سي جلد اجو مي اك وقت يجروم دائرة مخدمة الخدمة دي خملني نيكو سرين بي ديگ ليرك لنكو فسلين تحوي موي ني ني لگي سي جمعي lañu may ñu jullee fi waxtu yu juróom ak julli ajjuma yi ku dut ñooñu nag ndigal li mooy na jullee ca këram ba yeneen jëmmi jamono daayira Muxaddamatul Xidma nag di ñaan mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yépp ñu jàppale leen ci loolu ni ko sëriñ bi bëggee ngir mu amee ko noonu kon képp koo xam ne bokkoo ci ñooñu ñu wax ñuy liggéey ci jumaa ji ñi ngi lay ñaan nga toog sa kër jullee fa ba yeneen jëmmi jamono ngir ñu mën a sàmmoonteeg ndigalul sëriñ bi ba sëriñ bi ni mu ko bëggee mu amee ko ni lii mooy li sëriñ bi santaane te daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene koo taxawee ñu bañ mu ump kenn balay kenn ñëw ci jumaa ji jàpp ne dañ ko tere mu julli ci jumaa ji waaye lépp ci ndigalul sëriñ bi la loolu rek lañu amoon ci lu ñuy leeral ñi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.